jërë ngeen jëf yéen ñi tàmmu dakarnet.com ñu jottali leen xibaar bu tiis bu dal ci monde audiovisuel kii di Kebs Thiam di animatrice bu nekk fële ca TFM moo ñàkk way juróom bu jigéen Kebs Thiam nag eh, ci fàttali di animatrice eh, fële ca TFM di anime émission bi ñu naan eh, diaspora muy émission bu am doole ci moodu-moodu yi ñuy waxtaanee mbirum moodu-moodu yi ak seeni jafe-jafe. keps cam nag moo ñàkk way juróom bu jigéen ñu di ko ñaanal rek yàlla xare ko aljana firdawsi fépp fu ko way juróom boobu taxaw woon yàlla na ko fa yàlla féete yàlla na ko yàlla xare aljana jërë ngeen jëf.